asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen di gërëm di leen sant li ngeen di déglu yeewu podcast li ngeen di seetaan yeewu jot na sur YouTube te li ñuy ñëw def mooy analyser un peu euh, repo wu GitHub bu Bitcoin maanaam Bitcoin Core ci boppam source bu Bitcoin lu tax ñu naan open source la c'est parce que mën nga ko fekk github.com léegi balaa ñoo dem ci loolu dama leen di rappeler am na ay notion yu bëri yoo xam ne dinañ ko wax di ngeen dégg ay kàllaama yu bees di ngeen dégg ay mots yu bees foo ngeen seetaan vidéo yi nii pour mën a comprendre li may wax loolu moo taxoon ñu def vidéo yi nii c'est pour expliquer leen déjà bitcoin fan la jógee donc cypherpunks yi histoire bitcoin écosystème bi transaction yi nan lay fonctionner réseau peer to peer bi lan mooy full node type de wallet yi lan mooy mining et enfin termes yi nga xam ni moom la gars yi di utiliser domaine bi léegi li ñuy def mooy dem directement ci ripo bi donc adresse bi c'est simple github.com slash bitcoin slash fii nag information yi ngeen fi fekk bëri na déjà ci page bi nii lañ gis fii nii tag yi donc quand on parle de bitcoin forcément am ngeen langage de programmation C++ beaucoup de cryptographie dedans réseau peer to bi ak cryptomonnaie bi nii ngeen am licence bi moo MIT release yi maanaam version yi nga xam ne am nañ depuis création bitcoin fii ngeen am contributeurs yi y en a eu plus de mille six cent depuis création bitcoin langage yi nga xam ne utiliser nañ ko si yeneen fichier yi nekk fii nii donc gis nañ ni C++ bon moom la ñu wax c'est dominant après on a du Python notamment pour test yi Shell pour installation yi ak yeneen suñ jugee ci loolu ngeen xool fii nii en haut à donc là on problème yi nga xam ni moom la gars yi remonté issues yi fii on a plutocratie mooy changement yi nga xam ni moom la gars yi soumettre à équipe bii nii pour ñu mën ko valider après ñu intégrer ko si code source bi wala mën na nekk si lu bëri ah soo leen gisee plutocratie mën na nekk euh, mise à jour documentation mën na nekk euh, test bu bees bu kenn bind bëgg gars yi yokk ko fii mun na nekk lu bëree bëri bëri bëri fii nga am branche yi nga xam ne ñoo exister après li ñuy def mooy dañuy dem xool benn par benn donc déjà dañuy dem xool release yi release yi soo leen demee ngeen gis ne bu mujj bi bitcoin core 22 point 0 la donc euh, si bëri on va dire moom la ñuy lancer en attendant ñeneen ñi mën nañ lancer yeneen wala mun nañ garder bañ def mise gàdda yeneen version yi ay zero point vingt et un point léegi loolu nag mooy avantage bitcoin loolu la gars di wax en anglais backward compatible loolu moo tax gars di def lu ñu woowee soft fork de telle sorte que yow soo créé e benn version bu bees lu tere yeneen version yi e continuer di dox donc lii nii soo leen wàccee di ngeen gis version précédente yi so leen nekkee di bës next next next next di ngeen dem ba on va dire version zéro point un bi nga xam ne existé woon na après su la neexee tamit su ma delloo par exemple dernière version bi ngeen possibilité parce pense que seetlu ngeen ko ngeen def benn comparaison entre version bu mujj bii nii ak première version bitcoin bi donc zéro point un point cinq par exemple après bon on va dire il faut ngeen jël seen temps quand même parce que changement yi bëri na trop on parle de on parle euh, d'environ douze ans de développement douze de mise à jour donc loolu dafa bëri ngeen gis ni y a eu beaucoup de changements beaucoup de modifications qui ont été faites dans tous les cas daal loolu benn possibilité la boo xam ni ça s'offre donc lii mooy release après lan la ñuy dem xool en haut à gauche yi nekk fii nii issues yi maanaam instant yi nii yan problème la nit yi di jànkuwanteel ba pare remonté ko équipe bu Bitcoin Core développeur yi donc la plupart du temps da ngeen di xool juste tag yi parfois day nekk ay bug parfois dañuy anticiper sur benn mise à jour bu bees bi waaj na nekk benn feature après ça dépend aussi est-ce que système d'information bi on est leneen euh, parfois ça va toucher aussi le réseau peer to fii nii di ngeen ko gis gis ngeen xoolal kii par exemple nee na mënoo euh, désactiver le fekk que affaire bi lié à tort Euh, qui parle moom de documentation donc bëgg yi li gis ni bëri na lu tax mu bëree nii que ñuy utiliser bitcoin fort en tout cas dafa bëri bëri tamit suñuy bind la plupart du temps ce sont des problèmes mineurs yoo xam ni problème de build la wala problème de configuration la wala juste que nit yi xamuñu donc loolu moo tax parfois da ngeen gis ay issues yu bëri yoo xam ni ils sont là depuis des jours donc là par exemple bi si mujj il est là depuis vingt et un après soo leen ñu close da gis ni gars am na ñu réglé yu bëri yoo xam ni c'est plus récent donc bii par exemple gars yi ñu ko ubbi rek ko ci saa si donc euh, voilà ko en tout cas daal képp ku nga xam ne da ngay jéem a build bitcoin core comme source wala sax ngay utiliser benn nœud bitcoin peu importe noo ko construire nga gis si benn problème da ngay ñëw. nga créer benn issues fii nii new issue après nga def euh, sa argumentaire nga expliquer nga reproduire étapes yi pour que gars yi ñoom tamit mun ko defal seen bopp et enfin bon voilà quoi ñoom ñu nañ ci sëgg nañ ci waxtaan ak yow donc par exemple di nga gis gars yi dinañ commenter dinañ poser ay questions donc su ma duggee par exemple bii nii nga xam ni am na ay commentaires donc di ngeen gis ni après su fekkee na ngeen tàmm ñëw ci Euh, repo wu bitcoin di ngeen gis ni développeur dañoo répartir ay tâches donc soo demee si Fusion vous allez voir tout le temps les mêmes personnes pour request yi les mêmes personnes dans tous les cas daal gars yi dañuy waxtaan après à la fin bon dinañ clore wala ñu régler problème bi wala su fekkee c'est un vrai problème gars bi dem créer benn pull request donc su ñu demee xool pull request yi tamit changement yi bëri na. Euh, man mi mos naa benn pull euh, je pense ñaar sax les gars yi ça peut prendre quand même des mois balaa gars di si sëgg bi ça a pris euh, mois deux mois balaa gars yi di si sëgg di xool di si waxtaan échange et cetera mais dans tous les cas daal intéressant li ngeen di tu ngeen xool changement yi nar ñëw ci version yi nar a donc changement yi ça peut toucher beaucoup de choses ça peut toucher comme fii wallet bi ça peut toucher test yi donc fii réseau peer to peer bi ça peut toucher documentation yi donc tag yi nii ñoom ñoo leen di jàppale ngeen xool euh, pour request yi nii ça parle de quoi après su fekkee yéen par exemple vous êtes plus fort on va si lépp lu jëm si documentation wala bu dee plus fort si lépp lu jëm si testing bi wala yéen xam ngeen un peu lépp lu jëm si réseau peer to peer mën ngeen dañ kumpa ngeen dugg ngeen xool kii nii lan mooy problème bi par exemple su ma duggee fii nii instant bi moom il nous dit que léegi gars yi dañuy supporter réseau sujet DNS donc sujet DNS benn alternative à Tor la ak Itopi donc euh, moom qu'est-ce qu'il nous dit que dafa essayer tester mu ajouter ko ok instant yi ni gars yi suñu ñëwee ACQ mooy que ACK mooy que gars yi accepté nañ ko testé nañ ko ok c'est tout le temps les mêmes triangles en attaque loolu donc voilà quoi pour yi en tout cas daal mun na leen jàngal à peu euh, nit yi mise à jour yi ñu bëgg a def wala amélioration yi ñu bëgg a indi ci Bitcoin Core suñ demee si loolu dañuy dem si documentation donc documentation yi moo nekk nii fii par exemple man si laa jëlee euh, information yi tax soo leen demee sama GitHub ngeen fekk fa benn guide pas à pas pour mën a build Bitcoin Core from ci benn machine euh, Ubuntu Windows gars yi li ñu donc dama jël information yi nekk ci build Unix bi. nga xam ni si la ñuy expliquer dépendance yi plus euh, waa li machine bi soxla mais aussi yenn étape yi après bi ma jëlee lii ma dem xool tamit build Windows bi donc bi ma ci duggee aussi j'ai pris des informations xool à peu près gars yi ñoom lan la ñuy recommander comme étape pour mun a build Bitcoin Core en fonction de yow say euh, sa sa OS donc suñu delloo ci documentation bi ñu xool lan la à peu près donc à documentation de build yi am na ñeneen information sur OpenConf donc euh, moom mooy de conf bi mën a paramétrer yow sa nœud am nañ documentation soo buggee jaar ci réseau i nooy def am nañ documentation pour construire benn bi ti mooy ñuy woowee partially signed bitcoin transaction am na tamit documentation soo buggee utiliser Tor am nan ngay def ak yooyu donc c'est vraiment très très très on va dire complet am nga yeneen information alors suñu waxee tamit bitcoin suñu waxee bitcoin core suñu waxee open source et lan moo intéressé nit au final mooy code bi mu ngi nekk fii nii si dossier léegi loolu la ñuy gis léegi nii si partie 2 bi si vidéo bi stop